jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel seen site bi di Thiès Info nuyu nañ leen bu baax a baax tatagal leen di leen jaajëfal ci ànd bi nga ànd ak ñun saa su ne ndokkee leen bu baax a baax ci tabaski bi ñu ngi fii kër Serigne Omar dem ku wax Omar dem xam ko ci euh, benn bokk yaakaar xam ko ci APR waaye itam xam ko taxawaayam ci ci politique Serigne Omar Deme boobu ba léegi nag ñu ngi lay wër ci tabaski bi xam naa nag xatoon nga lool waaye nag li maanaam li ko yëng maanaam li yëngu li ko yëngal moo ko ëpp doole macha allah euh, ku ne xam ne dimb le président Macky Sall recevoir na les maires ak yenn président conseil départemental yi gis nga li ñu fa wax balaa boobu rek ñu bàyyi la nga nuyoo bala ñoo xuus ci waxtaan bi. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. salaamun qawlan min rabbir rahim yàlla na ko yàlla tuur ci réew mi yàlla defal ñu jàmm ak sutura. waaw li nga wax dëgg la démb recevoir na président conseil départemental yi. loolu rafet na ak maire yi liñ fa wax it rafet na xalaat biñ fa wax it rafet na mais nan lañ koy defee moom a jaaxal. mais président Omar Deme euh, ci loolu sax gis nañu démb kàddu yu fa jib yëpp ñoom ñëpp daal li ñuy wax moo di dañoo bëgg Macky Sall nekk candidat ci koo xamante ni euh, maanaam def na maanaam benn mandat sept ans benn mandat cinq ans ce que kooku maanaam bala ñoo dem foofu sax est-ce que Macky war na mën a nekk candidat donte nag war na wax suba. xam nga loolu mënu ma cee wax dara man xaw ma constitution xaw ma ci dara man Macky bu noon bu ne na ma ne woo na bu ne tooy na ma ne tooy na man moom laa àndal le reste affaire constitution man sama yoon new ci mais d'accord na na nekk candidat mais nan lañ ko gungee ci candidat bi ndax ñoom seen jikko yi ñu yor mënul yóbbu Macky fenn du ñëpp nag jàpp nga ni suba bu bu bu bu Macky Sall waxee suba rek dafay wax ni moom il est candidat non dee candidat nit ñi dañ ciy jàpp rek mais li tax ñu jàpp ci ba ñu am ndam est-ce que ñoom mën nañ ko ñoom nit ñi dañ leen a mere de ñi leen wër du ñëpp nag mais am na ñoo xam ne jaralatu leen ñuy dem di jàppale kenn ndax dañoo nax Macky ca njalbeen ba duñ ko wax dëgg buñ ko buggee jàppale nañ teg lépp ci yoon nañ teg yëpp ñu Macky kenn génn ko liggéey ci réew mi yow ku dindi say at yi set ans lu lay dese du bari terrain bi keroog bu muy ñëw di jaar di jaar ceene ba di dem jóge jóge kees jëm ceena ba jëm jurbel xale yi génn di naan makki makki makki xamuñu woon tere mais xamaan nañu tere makki ñaata at la fi def 12 ans lu fi liggéey kan moo ko fi mën a liggéey mais amul ñu ko gunge ñëpp ñëpp ñëpp nag bonuñu mais am na ñoo xam ne jarul sax mu naan da leen di gouvernement bi ñëw mu ne naan da leen di jéem a tabaat ndax mënuñu ko yóbbu fenn dañ koy tadal. Euh, démb gis nañu ku mel ni ami Ndiaye ñii bi nekk nekk ab maire. moom li wax Macky Sall moo di ministre yi ñoom ñoo liggéeyul ndax tey jii bu leen Macky Sall joxee dara du àgg ci ñoom du àgg ci askan wi loolu loolu itam est-ce que nemmeeku wuñ ko biir ministre yi du ministre yëpp am na ñu ci baax mais am na ñoo xam ne na leen Macky teggi teg fi ñeneen mënuñu ko yóbbu ci élection lu mel ni Thiès non kees ki fi nekk kay jàmbaar kooku bu meloon ni moom kees jekk docteur Pape Abdou Ndiaye boo ko soxlaa demal demal jaru ngay dem këram demal fukki buntu fa nga koy fekk mu toog waaye bu ñu nax nit ñi waaye ban ministre ngay fekk muy toog buntu këram maa di toog di waxtaan ak ak ay nit daawut garde corps daawut kenn li am yaay ji bi wax mooy dëgg makki ministre yi ko njëkk a nax ak yenn DG yi doole leen gis doo leen dégg am na DG yu fi nekk amuñu jariñ doo gis doo dégg. ku mel ne Abdoulaye Dieye. kay bokk ci bu DG yi meloon ne Abdoulaye Dieye mu jàkk. kon Abdoulaye Dieye mu ngi liggéey. yo xam nga ko Abdoulaye Dieye moo ngi liggéey waa kees xam nañ ko nañu dollit beneen DG def ko kees. beneen DG na ko doon di def ko Thiès. mais fii 2024 est-ce que maanaam mën na fi an DG boo xamante ni mën na liggéey euh, loo xamante ni te jikat kees waaye mën na jigi seen bopp ndax élection yi soreetul te itam 2024 kenn xamul lan moo xew 2024. loolu bu ko nekkoon suba mu am bu jëloon yenn DG yi nekk Dakar mu remplacer ko fii à Thiès lu mën a xew weer sa nga mën cee fal fukki DG loolu day wax Abdoulaye Dieye kay li ko mën yëpp moo ngi koy def tabaski bi gis nga ñu mu jàppale du xaaj du jeex ku mu bàyyi. daa toog chaque samedi chaque weekend mu ñëw Thiès li muy def ban DG ko fi mos a def. mais liggéeyam gis nañ ni que sax jamono bi am na ay naataango yu nekk wala woy taskatu xabaar yi génn am luñ ko daal di daal maanaam dàkkantale tey jii est-ce que loolu maanaam duñ ko gëm. mooy lan luñ ko dàkkantale. yenn journal yi génn bind ci moom. wax wax ci liggéeyam. ñooñu pour liggéeyam Ablaye Dieye li muy liggéey ma wax la benn affaire aéroport yi bu mu ko jëlee ba tey ana fan ñu ñu inauguré ko Kédougou Tamba Tamba yàggul Abdoulaye Dièye DG boo xam ne lu mu defagum ci aéroport amul benn DG bu ko commencé def te moom nit ñi bëgg nañ ko ndax dafa yaru dafa nite gis nga euh, Aboubacry Dia ñu tuddee la sama baay Thierno Abou Dia Aboubacry bu ñu naq suñu bopp gis nga kees gii na ko Macky renforcer ak ay DG tey bu jëlee ku mel ni Maodo Malick bay mu yokk ndombal tànkam kees di dinañ kontaan gërëm ko dinañ jubilé ba fajar ndax liggéey na ko ci askan wi dafa jafe jafe askan wi barki dem moo ngi woon fële moo ngi woon seesam nekk këram masali mii tey bu mu ñëwee région de Benno Bokk Yaakaar man lu rafet rek laa gis muy def kenn du laal makki ci wetam barke dem buntu këram laa toogoon bu ñu ne suba la julli ñu toog foofu di naan ataaya di waxtaan waaye ñu mel noonu boo leen jëlee dawul dikkul bu nit ñëwee mu recevoir ko keroog ñu mu fa dimbale maa ngi toog wa maa shahidnaa illaa maa ngi toog keroog fa lañ nekkoon di waxtaan na man damay sawar nañ ko jege sa askan Ousseynou juuf nañ ko jàppale xale bu sonn la au nouveau nord Pape Malick saw yaru na nit la ñu jox ko ñu ñu jàppale ko teg ko ndombal tànk bu taxaw Pape Malick Sow liggéey na ko ci noor bi te xale bu yaru la kooku kenn du ko fal ñu ne war kenn du ko fal ñu ne ko ci dañ naan seen télé yii ñu may leen signal prétise buñ ko defee jox ko signal ak télé ñoom Pape Silla bi nu mu tuddati. Euh, waaw waaw si naa maanaam bala ñoo ñëw ci wàllum télé yi euh, gis nañ ni que jamono bi situation réew mi dafa xaw a maanaam. yëngatu un peu ñu bëri ñu ngi xaar ni kat ci ak bag bi ñu jëm nii est-ce que gisoon par exemple bu Macky Sall bu dee maanaam bu déclaré bi euh, euh, jamono bi li nga xamante ni moom moo di candidature am dina yàq lu bëri. non xam nga loolu ak ak ak fitna moo ngi aju ci mbiru yàlla yàllaa yor loolu xam naa daal wattaqu fitnatan laa na tusiibanna llaziina zalamu minkum xaas ku yóbboo na ko moytu loolu ci yàlla la aju loolu xaw ma ci dara xam naa daal nit ñi war a delloo seen xel xam ne yàq moom baaxul. réew mi bu tënkoo ñun ñëpp ko yëg kees dem na ba tey ci wàllu jigéen yi ñu organiser leen am na jigéen bu fi nekk lépp lu rafet moo ngi koy def ci Thiès muy Mariam si la moom laa gis ah. gisuma keneen ndax man kees xam naa ko moom laa gis gisuma keneen nañ leen dooleel ah ki ñu ne nommé conseil keroog ki ñuy jël Euh, nommé ko te mu nekk xaritam kooku rafetlu nañ ko séné bu njoon moom dafa sonn ci APR ah Mamadou Ñëng nañ dem waxtaan ak ñëw Habib Kane lu mu def ci tabaski bi Habib kan est-ce que xam nga tey kees toll nañ foo xam ne kenn mënul dem bàyyi Habib Kane jamono bi ñu waaw da ko wone da ko prouver wane ko ci cees jàppale waa Thiès yëpp man am naa ci lu leer man du leen naa bu ñi may wax ñi am na ñoo xam ne xoolal du dara lu ñu ma jox mais damay wax te yàlla tax dangay damay wax rek te yàlla tax mais ñooñu ñoo mun a jàppale président lu mu bugg à Thiès mu Moustapha Badji man maa ko indi te koñam keroog dama woo ma dem ay jigéen mu jox leen soble appuyer leen ci ay xaalis jàppale la te loolu maa ko fekk Moustapha Badji Macky bu buggee dem maa suñ ne Benno Bokk Yaakaar dañuy dem dañu wut candidat il faut ñu changer seen jikko yi waxuma la Thiès donc Sénégal yëpp am na yenn ministre yoo xam ne na leen dindi fii yenn DG yoo xam ne na leen teggi Dakar tey DG yu mu fa nommé lan la ñu amal njëriñ man de gisuma ko géejawaay gee tey suñu changé wul Macky mënatu fa am dara nañ waxante dëgg il faut mu changé. kon daal jàpp nga daal kon pour Macky Sall mën a maanaam nekkaat président ñi ko wër ñoo war a defaraat seen taxawaay. ñi ko wër gis nga su Sénégal yëpp meloon nu maire Gossas Adama Diallo téye dëkkam téye departement téye commune am kon Macky du am problème kon bu tëddee day nelaw ba yandoor ba gént muy Adama Diallo. mais pour régler problème Thiès comme que Thiès lañ nekk nan lañ war def ba ñëpp juboo ànd benn. ànd ak benn ñu wax ak ndax tey boo xoolee docteur Pape Abdou Ndiaye bu ko yàlla indee muy dem ci gàmmu gi buy jóg ñëpp lay wax. maître Abdou Kane man maako ko indi maître Abdou Kane am na meeting boo xam ne def na ko fi 3 millions la ci def amul kenn ku fa dëgg tànkam lu docteur lu docteur Pape Amadou Ndiaye mais loolu du yoon docteur Pape Issi Ndoye aussi rafetlu nañu aussi. jàmbaar man xaw ma kañ laa ko gëj gis mais moo ngi def lu rafet ci dëkk bi di jàppale ay nit ah am na loo xam ne xoolal bu ñu nax suñu bopp Macky bu dee dafa bëgg daa war a xool ñu muy tabb équipe département bi tey li fi am moo su fee am dem ba ñàkk département bi nga ñëw gars yi jël yëpp. kon daal sëñ ma dem ci tënk bu ñu déggee daal moo di. boo xoolee mee bu mel ni Mbaye Boye. il faut mu jéem ko dooleel Cheikh Omar Anne mi nga xam ne yàlla indi na ko fi ñii nga xam ne xamuñu naan dëkku fi ñoo ñoo juum. Cheikh Omar Anne Cheikh sama mag bu mu bokkal baay moo yoroon yaayam am na ñaari doom sant dem te Cheikh Omar Anne baayam maamam mu juru yaayam nit ku baax la kër Thierno Abdoul Sall gii fa la jànge alxuraan foofi jàngi fi bokk ak ñu bari classe ñu xëy ñu gis ko ci dëkk bi c'est Omar am dugal ci dëkk bi dafa am njariñ dafa am ak njariñ président mais ku ñëw ngeen siis man indi naa Cheikh Kanté ñu siis ko. kon daal Thiès dafa am leader yoo xam te ne dañuy siis yeneen leader yi. xam ngeen leen man du ma tudd tur. déet mais soo bëggee mu neex na tudd tur. ñu xam ne tere kon ma tooñ te ma tooñ kenn man ku ma tuddul xamal ne nekkoo ci man ñi gedd dem sax dañ leen war a jël Cheikh Ndoye mii tey dem. du yoon dañoo war a dem seeti ko indi ko seet ñooyu am na njariñ du tabaski bi de man du lenn gisu tabaski sax teguma ko bët mais yàlla moo tax may wax dañ waxante dëgg te dee Macky bu buggee dem te am lu am lu ñu bëgg am benn bokk yaakaar toogaat fi nañ xoolaat seen daal ci tënk daal soo maanaam bu ñu bëggee maanaam ñi ànd ak bu ñu buggee Macky falu nañu defaraat seen toogaay demaat ci askan wi defaraat seen base loolu daal nga gis. buñ ko deful Sénégal ñoom ñëpp ñu dem ak base yi ubbi seen téléphone yi di wax ak nit ñi ñoom ñëpp ay daanu. kàddu gu mujj gi moo leen. kàddu gu mujj gi ñu bàyyi xeex yi ku ñu fal ay noon taaxu di la xeex Abdoulaye Dieye tey lu muy def Thiès yaayoon na lii est-ce que Ablaye dafa tëj buntam bu ñëwee ubbi na buntam seeti ñëpp seeti ñëpp. am na ñi nga xam ne tey war nañ leen a jàppale ku mel ni Ousseynou Diouf dañ ko war a jàppale Mariam Diop Sylla dañ ko war a jàppale Maodo Malick Mbaye ñu yokk ay ndomba tànkam ah Pape Malick Sow yaru gi ne ci moom jàppale ko seen tele yi maa ngi lay wax sàngamay kii mel ni précise nañ ko jox signal Thiès TV nañ ko jox signal yéen ñi li ngeen war a jàppale ñu jàppale leen te ñaanoon naa président ay parcelle na ma ko jox ma jox ko xale yi département bi mu jàppale ko mel ni Maguette Boye maire maire maire Kër Moussa bii Mamar Cissé mooy mooy maire mooy commune boo xam ne moo gën a rëy ci commune yi ñu jàppale ko mais kayaar réyul ah ay erreur yu ñuy def dafa baaxul département bi ñu wut ñu taxaw ñu jox leen département bi man de Maguette Boye maa ngi koy sant di ko gërëm gis naa yu bari day am ñu décanté am na loo xam ne aussi des fois da ngay gis man am na yoo xam ne du ma leen gis billaay Thierno Abou dañuy damay gis ko am problème ma woo ko mel ni Maodo woo ko mel ni keneen Ba Malick woo ko mel ni kii ma ne ah kii da am problème lii mu yëkkati jox ko ma Ablaye Dieye mais mais koo du jot téléphone lan ngay toog fii di ko gërëm Macky daal bu buggee changé bu buggee am dara ci Sénégal na xoolaat direction bi mbuur bee na ko xoolaat kenn mënatu leen jot tel kees moom comme yàlla def na docteur Ndiaye ngi fi yaatu na dënd na dajale ñëpp ñu waxtaan commune yi ku nekk mu la un est bi am nord bi am ouest am ñu dajale leen nañu wut koo xam ne moo leen di ci ñoom ñëpp mais li fi newoon bu ko fi tegaatee man de du ma génn sa vote ji ndax du ñu am Cheikh Omar Anne ñoo ngi koy woo na ñëw naan dëkku te yéen ñu fi dëkk mun leen fee def dara chaque année bu ngeen demee élection ñu duma leen loolu ban la am man duma ci wax man affaire candidat constitution du ma ci wax naa jànguma ko xaw ma ko. xam mais daal yow daal bu bu bu candidat la pare nga pour. man man benn laa bokk mu ne ànd naa ci anciens yi mu dajale leen et puis kees mu def benn affaire dajale ñëpp ñu nga xam ne dañoo mer ñëpp na leen recevoir directeur de cabinet aussi na wut directeur de cabinet boo xam ne bu jonge lay doon bu déggee fii ngénte sax mu dem gaari oto marqué polo xam nga xale yi ñu doon wax marqué polo mu dem marqué polo waaw na wut directeur de cabinet buy marqué polo mais directeur de cabinet buy xoj bu rombee ni ñëw alobaar loolu amul njëriñ mhm. day yaatal unité surtout Thiès Thiès na fexe gaa yëpp gis ko mouvement religieux pour l'émergence bi ñoom sonn nañu pour daje ak moom ñun dañoo yàgg bloqué ci palais bi te ñun ñun dong ñooy koo xam ne ay chef religieux nekk di jàppale buñ ko attaqué ñu jóg at jàppale ko ñun nag nekkuñu fi di xas kenn nekk fi di xas yeneen opposant yii loolu jaru ko jaru ko jaru ko di xas yeneen di tey boo xasee opposant yi sa bopp jaru ko da nga leen di xas ñuy gën a am mbooloo jaru ko nga tàggatoo tàggatoo daal mm-hmm. mooy Macky na leen jàppale yéen taskatu xabaar yi ndax lu siiw yéen a ko siiwal dimbale xale yi nga xam ne dañuy filme ku nekk am morceau boo xam ne fii sa kër lay doon di gërëm suma xarit Alaaji Mor Gueye lu mu def ci tabaski bi cent quarante mouton jënd na ko jox ko kooku leer nañ ñëpp maanaam maa la ko wax Mor Gueye sopp na bi def na ko te Macky Sall recevoir ñëpp toog waxtaan ak ñoom social moom booy bu ne dañuy social kees social morgue yi sopp na bi macha allahu rabbi koo xam ni président joxula dara te yaa ngi jàppale askan bi ci moom Habib kan ñu gën ko bàyyi xel président recevoir ko waxtaan ak moom loolu laa gis fi ñu jëm buñ ko deful kees jaruñ mu dajale waa kees yëpp recevoir leen waxtaan ak ñoom jeunesse Benno Bokk Yaakaar bi fi nekk xale yi cogère yi nañ leen jàppale surtout ñoom ñëpp Assane Mbaye ñoom la tabaski bi dañoo appuyé ay nit lu ma ci gis Assane Mbaye ay nit appuyé ñëpp di gërëm aussi ay Ibou Diouf sama booy lañ man ñoom ñëpp samay njaboot lañ Edouard Latouf maa ngi rafetlu ay kàddoom encore yàlla yàlla def jàmm ndax su ma toogee damay lim ba ba ba ba fàtte lu bari te may ñëpp dañoo nekk samay njaboot ñu ñaan yàlla daal bu dee yàlla def nañu ñu nekk candidat ba yàlla ma ñu ne ñun am nañu candidat diw la Macky la nañu changé su jikko yaraat suñu bopp suñ toogee fii di ndax Macky naan fii mokk na fenn mokkul te ñu du bëri la comme genre Ablaye Dieye yi genre Ablaye Dieye yi bu ñu ko amoon kees ñett ba ñeent ñu ñun dootuñu wax dara yàlla ñu yàlla defal jàmm defal ñu sutura yéen yàlla leen yàlla sàmm sàmm leen sàmm seen njaboot allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nekkoon ak Seydina Omar dem waxtaan ak moom ci mbiru euh, réew mi waaye itam euh, candidature bi nga xamante ni ñu nit ñaa ngi koy rumandaat waaye itam situation politique Thiès li ma nekkoon tey entretien bi di leen jox di daje ak yeneen waxtaan jërë ngeen jëf mbokk yi